Ousmane Sonko beneen bi moom maître Abdoulaye Wade nee na Ousmane Sonko dañu ko piégé beneen bi tamit nee na adversaire Ousmane Sonko bu am doole boo xam ne xam ay faiblesse Ousmane Sonko moo ko exploité dugal ko ci ak ndëgg sërëx Abdoulaye Wade nee na àndul benn yoon ci nii nga xam ne moom la Macky Sall di éliminer ay adversaire am Abdoulaye Wade nee benn yoon tamit ñu daal simmi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko ma ngi ci yéen a kaay réew mi a xëy daal ko di source nga xam ne moom la maître na suufa ndax Abdoulaye Wade ñoo ko dégg muy wax faiblesse yu Ousmane Sonko yan faiblesse la Ousmane Sonko am samplaaj yéen a kaay gi di a moo ci xëy en tout cas exclusif yéen a kaay nee bi dafa mel ni dafa gën a dugal nga xam ne maanaam mooy Ousmane Sonko yéen a kaay gi di Le ñu xëy fekk fa Mamadou Ndoye mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon LD moom nag nee na yi ñoom seen bopp ñoo fi war nekk naan waaw lii est-ce ci boppam ma nga ca biir yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa xam ne ñooñu Ousmane Sonko ñoo ngi koy def loolee du tere Ousmane Sonko wuy ji ndax état am na doole goo xam ne képp koo xamante ni woolu nañ la di nga wuy si ci nii wala ci naa te Ousmane Sonko mi nga xam ne dafay tenir ab discours religieux maanaam di lan lay def ci ab cabinet 22 heures ak boo xam ne xale bu ndaw la am 20 ans mbir mi amul lenn politique loo xam ne am na ci ñaari civil ñoo jotee nañu dem sa tribunal ba kenn ku nekk daal di lay yéenekaay gi di xëy fekk fa maître Moustapha Dieng muy indi ay leeral ci test yi nga xam ne ñoo ngi koy wax ne dañu ko bëgg a defal Ousmane Sonko moom avocat bi joxe na xalaatam nee na Ousmane Sonko su ko neexee a def li nga xam ne mooy ay test ADN yéenekaay gi di Source A nee na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom nag dañoo am xel mu ñaaw njort ne test ADN daal bu ko Ousmane Sonko defee état bu Sénégal mën na see def ay manipulation yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa yaayu Ousmane Sonko moom nag nee na mbir mi daal ni ko ñëpp di dundee noonee la koy dundee te jàpp na ne bis dina ñëw dëgg gi dina feeña son Sonko kere bi nga xam ne dalal na jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi di Pastef jigéen ñi nee nañu ko Macky Sall su bëggee sacrifier Ousmane Sonko maanaam ci seen kaw lay jaar ñoom jigéen ñi Ousmane Sonko moom tim daa nay wax ne xale bu jigéen boobe daal bu mbiri leeree du ma am lenn loo xam ne moom laa koy toppee ndax leer na ma ne dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam ne ñoo koy utiliser na li nga xam ne mooy commission ad hoc bi ci assemblée nationale tey jii la ñu koy daal di commission ad hoc boobe nag ndax Ousmane dina leen wuy ji ngir nag ñu daal di koy mën a déglu mu joxe xalaatam ci mbir mi yéen a kaay gii di li quotidien nee na mbir mi en tout cas doy na waar ndax njabootug aji saar gi nga xam ne ñoo nekk sa ji fere ñooñu nag woolu nañ leen ci ndakaaru ngir ñu ubbi ab enquête si ñoom daat leen di dégloo maanaam yaayu xale bu jigéen bi akub tantam ak njabootam gi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci ndakaaru ñooñee war nañu leen a déglu ci mbir mi yéen a kaay gii di Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci meneen mbir maa ngi wax ci mbir mbirum Ebola bi nga xam ne feeñ na ci diwaanu Guinée Conakry te état bu Sénégal war ay matukaay yu dëgër këccee yéen a kaay gii di Vox Populi nee na foofee ca Guinée am na lu toll si juróom-ñaari nit ñoo xam ne amee nañu Ebola am na si ñett ñoo xam ne ñàkk nañu si seen bakkan yéen a kaay gii di Rewmi ak Libération nee na attention Ebola bi ma ngi ci bunti Sénégal ñi nga xam na ñooy waa OMS ñoo ko xamle yéen a kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa docteur Abdoulaye Bousso moom nag nee na coronavirus bi ma ngi gën di yokk ci Sénégal ndax cas grave yi saa sunu xëyee cas grave di yokku ñi nga xam ne ñooy faatu ci corona bi ma ngi gën yokk ci Sénégal kàddu docteur Abdoulaye Bousso la yéen a kaay gi kii di yi nag ñoo ngi alerté ci góor ñi nga xam ne ñoo amee coronavirus médecins yi nee nañu góor ñi bu ñu amee coronavirus ba wér mën nañoo amee impuissance sexuelle maanaam la nga xam ne moom la ñu ci seen wàllum sëy dootuñu ko mënati yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na am na ñeenti nappkat ca diiwaanu Saint-Louis ñoo xam ne daan nañu ñàkk seen bakkan dañoo nappi woon bay nag jéggi li nga xam ne mooy brèche bu Saint-Louis bi la ñu faatoo journal bi ci nag ak équipement yi nga xam ne yoroon nañu ko gis nañu ko sa kayaar yéene kaay gii di sunu làmb nee na nag nga xam ne ñooy mbokki Boy Niang bay boo ñu nag jël seeni matukaay ndax Tapha Tine mi nga xam ne moo war a jàmmarloo ak Boy Niang ma ngi ci entraînement yu tara tara yéene kaay gii di stade na xamante ni dafa ne la woon Messi jamono ji yeewu na grande forme ci la Messi nekk jamono ji ba 2021 commencé ba léegi ndax nag ci atum 2021 bi Messi toll si juróom-ñeent ci ay but def ñaari passe décisif jamono ji Messi ma ngi ci forme Société nationale de